بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتعفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنصتوا خيرا لأنفسكم ومن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم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 suñ jotaay bi weesu yeggale woon nañu baabu imaamatil abdi wal mawla bund bi wax imaama nekk imaam bi jaam bi ak bi nga xamante ne dañ koo goreel ak ki nga xamante ne moom mooy waladul baxi ak eh, doomu maanaam jigéen ji sàggan gi wal ak alwal aarabi yi ak kaw-kaw bi wal gulaam alladi lam yaxtalim ak gone gi nga xamante ne jotuta eh, gént ñooñu ñëpp ne danañ jiite mu ne lu tax mu ne ngir yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ya ummuhum aqra'uhum li kitaabillah ki nga xam ne moom moo leen di jiite mooy ki gën a jàng alquran téere yàlla bi kon nag loo kooku moom moo war a jiite gisoon nañ ci jotaay bi weesu xadis bi mu juwoon ci buntu boobu mooy xadis sayidna anas ibn malik رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمعوا واطيعوا وان استعمل حبشي كان راسه زبيبه من نين ديغ تي نين توب من دونت دانيو تك سي سن كاو كليفتيف مام دانيو تك كليفتيف سن كاو كو خامتيني حبشي لا مانام ايثيوبيان لا بو خامتيني بوب بي صاح دا ملني خوفو ريزين mu gisoon nañ euh, tamit baabu euh, baabun iza lam yutimmal imaamu wa atamma man xalfa bunt bi nga xam ne mooy wax ne su fekkee ne bi moom matalul waaye ñi nekk ci ginnaawam ñoom matal nen maanaam moom mooy euh, su fekkente ne imaam bi moom matalul te moom mooy imaamu te maanaam moom mooy ndax lëkk maanaam te ñi ci ginnaaw matal maanaam mooy lëkkaloo bi nga xamante ne moom la jullik maamum bi lëkkaloo ak jullik imaam bi ak wuuti ci borom xam-xam yi uh, amoon rahmatullahi alayhim loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci xadis sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala anhu mi xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni yusalluuna lakum fa in asaabu fa wa in axta'u fa lakum wa alayhim maanaam ñoom dinañ leen dinañ jiiti julli waaye nag maanaam su fekkente ne lañu def noonu la bu boobaa ah, eh, yéen a ko moom maanaam wala boo bu ñoom bu julli bu baax maanaam yéen am ngeen bénéfice bi suñ jullee julli bu bon nag maanaam eh, bu boobaa yéen yéen ay am bénéfice bi maanaam yéen ay tonawu waaye ñoom ñoom lii lii gaañ ci ñoom lay dal maanaam ñoom daal ci seen kaw lay nekk ah, loolu nag ah, li ñu fàtte woon wax ci suñu jotaay bi weesu ci xadis bi mooy ne euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon def dinañ ko gën a gis incha allah mooy ñi doon yéexi julli yi maanaam nga xamante ne euh, dañ daan julli dañ daan toog ba heure bu leen neex ñu ñëw ñu daal di julli maanaam comme ni nga xam ne noonu la xewoon ci yenn ci umara ubanu euh, umayya maanaam nga gis ne loolu dañ ko daan def yenente bi nag sallallahu alayhi wa sallam daf leen daan wax naan ni ngeen julli seen kër boo leen demee ba jamono jooju ñëw ni ngeen julli yéen seen kër ba waaye bu mu leen tere ngeen mën a dem ginnaaw gi ngeen dem ci jàkk bu boobaa su su fekkente ne nañ heure bu baax yéen boobaa ngeen gañe suñ julliwul heure bu baax seen yéen de toute façon amul problème ndax julli ngeen ba noppi loolu maanaam beneen maanaa la boo xam ne tamit nekk na ci xadis euh, bi bu bokkut ak maanaa bi nga xamante ne rek mooy yi ñu jotoon a wax ci suñ jotaay bi weesu euh, ñu waroon a gis baabu imaamatul maftuuni wal mubtadi' te tàmbali woon nañu ko tàmbali woon nañ ci wax li ki nga xamante ne moom la ñu namm ci almaftuun mooy ku ñu fitnaal te moom mooy ki nga xamante ne ak cànkute daa dal ci kawam maanaam moom mooy xëy na dafa ak am ak njubadi wala ak ak ak ak bu nekk ci moom wala yu mel noonu moom mooy kàccoor rek moom la ñuy wax imaamatul faasiq maanaam ci yeneen borom xam yu ñaare rahmatullahi fuqahaa yi suñuy ubbi buntu bu mel nii dañu koy tuddee imaamatul faasiq maanaam wal mubtadi' maanaam ñoom noonu lañ koy tuddee waaye imaam al-Bukhari rahimahullah dafa bañ a jëfandikoo baatu faasiq kàccoor bi daal di indi maftuunu maanaam koo xamante ne dañ koo fitnaal ngir ne léeg-léeg fitna mën na dal ci kaw nit fekk du ne moom ci boppam moo bëgg mais nattu la bu dal bu dal ci kawam ci maanaam jikko la ju bon xamante ne moom ci jëmmi boppam mënu ci dara wala boog moom ci jëmmi na ciy génn waaye manu ko comme masalan tuxkat bi xam ngeen ne léeg-léeg tuxkat bi léeg-léeg mu nekk ci période boo xamante ne moom ci boppam maftuun la maanaam du question de faseq la waaye maftul la da cee mënul dara bëgg naa bàyyi tux bi mais manu ko te pourtant ba mu ciy dugg ba mu nekkee gone ay foo moo ko ci dugaloon wala yu mel noonu kooku moom la ñuy wax maftul te danañ ko gis ci xadis bi di ñëw insha allah imam al-Bukhari rahimahullah indi na ci exemple bu yéeme moo xamante ne moom mooy xeetuk maftul dinañ ci ñëw insha allahu taala ah, nitu bidaa bi tamit waxoon nañ kenn ca namm waxoon nañu ci suñ jotaay bi weesu ne bidaa dafa am ñaari xeet ci globalement maanaam déjà ni mu amee ci axkaamu yi nga xam ne ñoom ñooy axkaamu taklifiye yi ni mu amee juróom mooy yi nga xam te ne mooy farata euh, wala lu war euh, ba pare mu am li xam dañ koo sopp mu am lu dagan mu am lu ñu sipp mu am lu xaraam noonu la amee tamit ci bidaa maanaam juróomi xeetu bidaa yëpp am nañ waaye euh, maanaam ki ñu namm globalement ci mubtadia buñ koy wax mooy ki nga xamante ne bidaa ba muy def dafa xaraam maanaam euh, kooku moom moo tax ñuy wax mais tamit classification boobu terewul ñu mën a classifier mbir mi tamit ci ñaar rek bidaa bu baax ak bu bon rek maanaam euh, loolu maanaam pour gën a mën a globaliser la ngir mu gën a mën a euh, yomb takk la moo tax ñu naan bidaa bu baax am ak bu bon waaye façon yi yëpp am nañ maanaam ni mu amee bidaa bu bu xaraam ni la amee bidaa boo xam ne farata la comme ni nga xam ne loolu lañ ko gise woon masalan daara yi nga xam ne moom la ñu samp ngir jàngale alquran ak yu mel noonu téere yi alquran yi ñu bind ko mu nekk kaamil wala yu mel noonu téere yi xam-xam yi ñu di ko móol ak yu mel noonu lool amul woon jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam classification bi ñu classifié yi ñu maanaam xam yi mu nekk ay domaine ñu xam ne lii tafsir la tudd lii fiq la tudd lii usul la tudd lii aqida la tudd lii tasawuf la tudd lii euh, naxwu la tudd lii maanaam yooyu amul woon jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam waaye nag Euh, dafa fekk ne bid'a la boo xamante ne dafa war maanaam mënta ñàkk ngir ne su amul xam-xam bi ci boppam muy réer maanaam ak yu mel noonu te loolu euh, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yooyu ay bid'a lañ yoo xamante ne danoo war mu am tamit bid'a yoo xamante ne dañ koo soppul kese comme exactement ñaar fukki rakkaa yi ñuy julli naafila yenent bi defu ko woon sallallahu alayhi weeru koor bi ba ñuy def ci ka ñu ngi def ci kaaba gi ah Ah, ah di ko def jumaa yenente bi Madina sallallahu alayhi wa sallam amutoon jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mais bidaa bu ñu sopp la maanaam ah, ak yeneen ak yeneen yu mel noonu maanaam noonu la amee bidaa tamit yi nga xam ne ñaare nag bu ñuy wax bidaa de manière générale bu xaraam bee tax ñuy wax maanaam loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala ni al-mubtadi waxoon nañ ci suñ jotaay bi weesu ne dafa am ñett eh, dafa am maanaam ñetti dimension yi nga xam ne ñooy dimension yi l'islam mooy fi mooy iman ak ihsaan islam ñi nga xamante ne mooy xam-xam yi ci aju moom mooy moom la ñuy wax fiqh bu dee xam-xam yi nga xam ne ñooy tourner autour de l'islam fiqh lañ koy wax dañuy wax tamit maanaam li nga xamante ne mooy mbir mi ci jëmmi boppam le le fait fekk mu nekk mbir mu ñuy jëfee di ko taxawee di ko war a taxaw ñu tuddee ko sharia maanaam bu fekkente ne iman la nag moom la ñuy tuddee maanaam moom la ñuy tuddee ilmul kalaam wala tawhid wala aqida maanaam moom mooy ni mu nekkee noonu bu dee ni ko war a taxawee jàpp ko loolu la ñuy tuddee aqida mooy pas-pas bu fekkente ne nag maanaam ni mu nekkee euh, euh, xam-xam dañ koy tuddee ilmul kalam wala ñuy wax tawxiid ngir ni muy saxee ci xolu nit ki amma ni nga xamante ne noonu lañuy tuddee euh, ihsaan beneen dimension bi mooy ihsaan maanaam xam-xam bi ci aju ak li ciy wër-wër loolu loolu la ñuy tuddee tasawuf waaye nag la nga xamante ne moom mooy mbir mi ni ñu koy taxawee incarné ko moom la ñuy tuddee xaqiqa léegi nag tariqa nag moom faw mu am. ba dimension yooyu yëpp amee ngir ne tariqa mooy lii tax ba bu may pratiquer sama sharia ak sama aqida ma mën a incarner xaqiqa maanaam loolu lii tax yoon wi may dimbali ba ma man loola looloo tudd tariqa maanaam kon islam nag ñi ca doon yëngu mooy fiqh bi am nañ ay imam mooy comme imam Malik imam Shafi imam Ahmad imam Abu Hanifa imam Sufyan Sayd Thawri ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah al jami imam euh, at-Tabari euh, imam Layth ibn Sa'd ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim nga xam ne ñoom ñëpp seen mazhab amoon nan léeg ba borom bi nag def na ne ñeent ñoo fi des amma li nga xam ne moom mooy iman ñoom it ñi ciy yëngatu muy wàll wax di almul ak aqida ñoom it am nañu ay imam yoo xam ne mboolem ahlu sunnati wa jamaa ci seen ginnaaw imam yooyu la ñu topp imam ahmad ibn hanbal imam abul hasan al ashari ak imam euh, abul mansour al maturidi moo tax ñoom la ñu topp seen ay giir ci wàllu ah, pas-pas ne waa ahlu sunnati wal jamaa amma ñi nga xamante ne nag moom mooy ci domaine mu tasawuf bi kon comme yoon yi danoo bari comme maanaam mbir mi benn la te moom mooy an taabud allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraa fa innahu yaraak mooy nga jaamu yàlla kéem si ne yaa ngi koy gis te boo xamante ne gisoo ko xam ne yàlla yàlla ne maanaam maanaam xamal ne moom mi ngi lay gis maanaam mooy ne nit ki dafa war a incarner xaqiqa boobu nga xamante ne fu mu tollu xolam xelam lépp mi ngi ci borom bi subhaanahu wa taala ba pare xolam set ci mboolem loo xamante ne ak ñaawteef la waaye ba pare lépp loo xamante ne lu rafet la sax ci xol bi loolu segam mbir moomu noonu la war a demee Euh, loolu lay tax maanaam benn point kese la benn point kese la boo xoolee islam juróom benn point juróomi point la mooy ponk yi iman juróom benn lañ mais ihsaan benn ponk kese la mooy ngay jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis maanaam si lépp nekk jaamu yàlla comme que mbir mi noonu la demee nag maanaam yoon yay mën a ci point boobu dañuy bari maanaam yoon wu la mën a yóbbu ci booy pratiquer ca ihsaan sa sa sa charia ak sa aqida nga réaliser sa xaqiqa en d'autres termes booy pratiquer sa islam ak sa iman mu yóbbu la ci sa ihsan bépp yoon bu la jëmee ci loolu moo tudd tariqa mu am nag ay sëriñ yoo xamante ne dañoo ŋànk ay tariqa maanaam ni sharia amee ay imam muy fiq bi noonu la aqida amee ay imam muy iman maanaam lool noonu la xaqiqa ak tasawuf amee ay imam muy sëriñu tariqa yi maanaam mbir mi noonu la demee doonte yii yëpp nag ay bidaa lañ manam doonte yi yep ay bida la yenenbi bi saa sallam bàyyiwu fi benn mazhab bu tudd maliki wala shafii wala yoyu yenent bi ko fi bidaa mais nag bidaa la bu baax boo xamante sax farata la sax faf naka nonu yenenbi bi saa sallam bàyyiwu fi benn mazhab ci walu aqida lul waye bi aqida bi nga xamantene borom xam-xam ñoko ñu muju théoriser manam tek ko ñu am ci ay imam muy aqida ahlus sunnah wal jamaa bobu tamit bida la waye nak noonu lañ ko war a defee faw mu am loolu yeneen saa saa bindul benn téere aqida amul naka noonu maanaam loolu yëpp amutoon waaye dafa war bidaa la waaye bu rafet la mu am beneen bi nga xam ne mooy wàllu tasawuf yeneen bi saa sallam bindutoon téere tasawuf naka noonu waxu fi woon waxi tarixa waaye nag dafa war maanaam ngir mën a incarner xaqiqa lii mooy problème lii mooy affaire bi lii boo comprendre mbir mi day daal di leer ci ne maanaam naam yi yëpp ay bidaa lañ waaye bidaa bii taxut imaam al Buxaari yi di wax ni ki noonu borom xam-xam yi bu ñu naan julli ci ginnaaw ab mubtadia nitu bidaa bii taxut ñuy wax mais bi tax ñuy wax mooy nit ki nga xam ne dafa indi ay bidaa yu bon euh, mooy te muy comme ñi nga xamante ne mooy gisoon nañ leen ci kitaabul iman comme qadariye yi comme jabariye yi comme euh, murji ay comme chia yi euh, rawafid yi nasiba yi comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, euh, musabbiha yi ah wala mujassima yi ak ñi nga xamante ne ñooy mu'attila yi ak ñooñu ñi nga xamante ne mooy groupe yooyu ñooñu ñoom dañoo xaraam maanaam ci ñenn ñi maanaam comme te loolu mooy mazhabu xanaabila yi rahmatullah ne dafa xaraam ci ñoom nga ji nga julli seen ginnaaw waaye nag te seen julli seen ginnaaw baaxul. loolu mooy xanaa bi yi am na ci fuqaha u maliki am rahmatullahi alayhim daanaka mbooloo mu baree baree bare bu bu leen topp ci loolu waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur moom mooy xanafiye yi ak saafiye yi ak mbooloo tamit mu bari ci maliki yi rahmatullahi ñoom li ñu jàpp mooy julli ci ginnaaw ñooñu tamit garawul maanaam mooy ku kàccoor ci wala mubtadi bi julli ci ginnaawam yàqul dara parce que lu tax parce que alayhi bidaatahu comme ni nga xam ne noonu Euh, euh, mooy alxasan mooy albasari rahimahullahu taala nee na salli jullil wa alayhi te dana war ci kawam dana dal ci kawam bidaatahu bidaatahu bidaawam maanaam bidaa bi muy dund waajooju moom moom moom moom moom moom la concerné euh, ñi nga xamante ne nag moom mooy fuqahaa u xanaabila yi rahmatullahi ak fuqahaa u mbooloo bu bari ci fuqahaa u maaliki li ñuy d'accordul ci loolu mooy ne kooku du nit ku wóor ku ñu mën wóoru ci diine imaginer xam-xamu xadis baa ngi nii xadis yi ngi nii du ñu nangu xadisu mubtadia surtout boo xam ne da day réclamer bidaa bi muy woote. Mm-hmm. nit ki noonu ab kàccoor fi mu toll bu rek xadis xadis boobu dañ naan da dafa daif maanaam ngir càllale gi mu nekk kàccoor dafa faane maanaam kon nag ana nan la te julli moom mooy li jaamu yàlla bi gën a màgg ana nan lañ mën a wóoloo nit ci loolu. maanaam comme li imam al Aboubacar ibnul Arabi wax rahimahullah mu yéemu naa ci borom xam-xam yi. nga xamante ne ñoom ci wax maanaam témoignage bu simple témoignage bu simple duñ ci nangu waxu nitu bidaa duñ ci nangu waxu kàccoor waaye ci jullit ak mooy jaamu yàlla gi gën a rëy ñu war cee mën a nangu ki nga xamante ne mooy kàccoor bi jiite leen loolu daal yéeme na mais euh, xaqiqatan <laughs> loolu euh, maanaam euh, boo ko xoolee ci angle boobu di nga gis ne maanaam fi ñu teg seen xalaat maanaam seen gis-gis boobu dëgër na waaye nag dafa am lu mat a bàyyi xel mooy ne nit ki mën naa nekk kàccoor mais julli du ko foowe maanaam te julli raar na ñu koy foowe beneen mbir bi nga xam ne mat naa leeral ñu leeral ko léegi balaa ñuy continuer mooy ne mbir mi day day day évoluer selon loolu dafa bokk ci àtte yi nga xam ne dañuy évoluer selon jamono ji nga nekk ak selon bërëb bi nga ne tey imaginer ñun suñ jamono jii ñu toll bu doon dañ naan nit ku xam nga kàccoor luñ ko tuddee mooy koo xamante ne dafa def bàkkaar dafa def bàkkaar bu mag maanaam de manière publique ñu gis ko maanaam wala mu def bàkkaar bu ndaw mais mu wéy ci maanaam mu wéy ci bàkkaar bu ndaw mu sax ci loolu tey boo tànn imaam nga ni dama bëgg maanaam képp ku mel nii dama koy dindi yaakaar naa ne jumaa yu bari dootuñu amat imaam jàkka yu bari beneen mbir bi ci des tamit moom mooy ne Euh, yii imaam yii ni imaam ak yii nii euh, yi nga xamante ne moom mooy jumaa yi bokkuñ ci maanaam julli jumaa ci eid bokku yiñ naan muqtadi du jiite ak euh, kii du jiite loolu bokkuñ ci beneen bi ci des moom mooy tamit kii bokku ci mooy aj période aj ak Makka ak yooyu ñooñu bokkuñ ci maanaam buñ naan nitu bidaa du jiite nitu bidaa wala ab kàccoor bu jiitee du kii yii bokkuñu ci voilà euh, loolu tamit lu ma a xel la beneen point bi nga xamante ne moom moo mat a xel kon mooy jamono ji ñu ne par exemple su doon ne te te buntu boobu nga ubbi ko maanaam wax li xanaa bi lay wax rahmatullah alam wala mbooloo moom ci maalike yi rahmatullah wax li muy indi surtout ci suñu jamono ji problème bi muy indi moo ëpp doole fuuf li mun nar a régler maanaam ndax li muy indi mooy kenn ku ne soupçonné sa morom kenn ku ci nekk nekk di wër di reju sa morom maanaam di nekk agent secret hmm. parce que suñu jamono ni nit ñi mel la maanaam nit ñi dañoo xaw a amee jikko yooyu parce que ba pare dañuy dañuy mañak dañ naan ah wóorul parce que est-ce que ki may jiite boo moytuwul nangam nangam xam nga comme jamono ji dafa yàqu beneen bi ci des moom mooy loolu képp ku ko xool ci sa bopp te yëggagoo fenn fi xaqiiqatan yow ci sa bopp doo mën a nekk imam te bu ñu ko toppee noonu nit ñi duñ am imam hmm. maanaam loolu muy beneen point loolu moo tax euh, li jumhuur wax dañuy dogu ci ne mooy mooy li dëgër moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi euh, bunt bi leer tamit ne loolu mooy li nga xam ne sikk nekkul ci ne moom mooy li gën a dëgër maanaam moo tax mu indi ko waxuñu dogu baa bunt imaamatu imaam ak al-maftuuni ku ñu fitnaal wal mubtadi ak kañu ki nekk eh, nitu bidaay mu indi waxu si eh, imam Hasan al Basri bi rahimahullahu taala ngir dëgëral loolee maanaam mu ne eh, qaala qaala bil isnaad muttasil fi qaala Abu Abdullah mooy imam al Bukhari rahimahullahu taala wa qaala lana Muhammad ibn Yusuf te moom mooy al Firyabi wa qaala lana xam nga waxoon nañu qaala lana ak lana zakar yooyu zakara lana yooyu ci muzaakara lañ koy faral di wax. imam al-Bukhari nag rahimahullahu taala mom daf koy faral di indi même bu fekente ne du muzakara euh comme fu muy waxe qala aban wala qala lana bo seetloo souvent daf koy wax ci mutabaati wala mu wax ko manam lolu règle la ci imam al-Bukhari rahimahullah ni muy waxee su ne qaala lana wala qala manam mu nuru ne ci muzakara la moy soit da fay fek ne wax ji yëggul maanaam du du du du wax du yegg ci yenente bi sallallahu alayhi wa loolu mooy benn léeg-léeg mu wax ko fekk muzaakara la te loolu dinañ ci gis ay exemple incha allah mais léeg-léeg mais lu ci ëpp imam al Buxaari rahimahullahu taala su ko waxee dafa fekk ne soit xadis bi mawquuf la maanaam yëggul ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci saxaaba la mu nekk ne dafa am ci càllale gi koo xamante ne remplirul moom ay conditions moom mu daal di koy nettalee noonu ne qaala lanaa maanaam Muhammad ibn Isa al-Firyaabi euh, moom euh, mi ngi gën a àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna deux cent douzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta waaye imaam al-Buxaari yi rek moom moom la nekk sëriñam euh, maanaam moom lu ëpp ci moom lay solo maanaam am na Muhammad ibn al-Firyaabi ak al-Bikandi ah moom alfiria kii nag alfiria bi la moom alfiria bi ci Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri la solowee ak ci imam al-Awzaa'i ñaar ñii la solowee ci Sahih al-Bukhari maanaam mu ne qaala haddathana al-Awzaa'i mooy imam bu màgg boobu faqihul waa Shaam abu amr abdurrahman ibn amr ibn abi amr ad-Dimashqi rahimahullahu taala muy faqihu waa Sham mi ngi génn àdduna quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa sallam moom it ci borom mazhab yi ñu doon wax sànq ci la bokkoon mm-hmm. rahimahullahu taala al Awzaa'i la mazhabam tuddoon waaye mooy mazhab la boo xamante ne amatul rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Zuhri mooy Zuhri mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi 225 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ni ngi ko ci kutubu sitta an Humayd ibn Abdurrahman te moom mooy Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf rahimahullahu taala muy Abu Abdurrahman dañ koy Abu Abdurrahman wala Abu Ibrahim moom mi ngi génn àdduna 32e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 95e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta di doomu saydna abdurahman ibn awf mu ne an ubaydullah ibn adi ibn xiyaar te moom mooy ubaydullah ibn adi ibn xiyaar ibn alxiyaar ibn adi ibn nawfal ibn abd manaf foofu la bokk yéen saa sala ibn abd manaf ibn qusay ibn Kilab al-Qurashi rahimahullah maanaam mbokk moom mbokk saydna usman la radiyallahu anhu yaayam yaayam mooy ummu kitaal euh, bint usayd ibn abil aas euh, maanaam nga xam ne foofu kon la bokk ak sayyidna usman al umawiya maanaam euh, ibn abil aas ibn umayya maanaam moom moo tax moom waa banu umayya la moom mi ngi gën àdduna ci dundu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am na nag ñu ne moom baayam mi ngi génn àdduna ci jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam fekk ci yiifir yi la bokkoon maanaam ci kaw loolu kon moom day daal di leer ci ne saxaaba la maanaam wuute gi ñu am ndax saxaaba la ak du saxaaba daal di mën a taxu maanaam eh, te waaye nag xaqiqatan sax moom ci saxaaba yi la bokk bu ñu ko xoolee ngir ne ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la gane àdduna eh, eh, ndaxte gis na yenente bi sallallahu alayhi wa moom nag ñi nga xamante ne ñoom la solowee ci ñoom moom mooy Seydina Omar ibn Khattab Seydina Ousmane ibn Affan Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Kaab ibn ah, ah, ah kii Kaab ibn Malik ak ñeneen ak ñeneen maanaam euh, te dund na euh, maanaam këram Madina la nekkoon maanaam dafa amoon kër biir ma Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam amma ñi nga xam ne ñoom ñoo solo xam moom mel ne Urwata ibn Zubayr moom ak Humayd ibn Abdurrahman bii nga xamante ne moom la ñu wax ne ak Ataa ibn Yazid al-Laysi ak Ma'mar ibn Abi Habiba euh, imam al-Bukhari imam Muslim ak moom Abu Dawud ak moom an-Nasaa'i ñoom ñëpp solo nag ay xadiisam maanaam juróomi xadiis la am ci Saxiixul Bukhari ba mu jeex. Euh, am na nag ci juróom-benneel boo xam ne dañ ko cooy tudd maam ay xisa xistaam waaye nekkul ci càllale bi waaye ci ay riwaayaam juróomi xadis la am ci euh, saxiix bi ba mu jeex euh, wuuteeg mais mais rek imam az-Zahabi rahimahullah dafa ne imam al-Bukhari imam muslim rek ñoo solo ay xadisam waaye imam Abu Dawud rek imam an-Nasa'i kenn ci nekk solo na ci moom benn xadis wallah wala ñaari xadis ci imam Abu Dawud imam an-Nasa'i benn wallahu taala alam ah, kon imam euh, at-Tirmizi ak imam Ibn Maaja moom moo solowul ci ñoom ñoo solowul ci moom euh, moom kon da ngay gis ne euh, mbokk Seydina Ousmane la ci côté yaayam maanaam dañoo jege wantoo Ummu Qitaal ibnu Usayd ibnu Usayd bintu Usayd bin Abil Aas voilà te Seydina Ousmane radiyallahu taala mooy Seydina Ousmane ibn Affan ibn Abil Aas maanaam nga gis ne kon maanaam ay cousin xeet yooyu lañ maanaam bokk nañ jege wantoo nañ radiyallahu taala an moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xilaaf mujjantalu xilaafa euh, Abdul Malik euh, te maanaam moom doom maanaam te parce que moom xilaafaam al-Walid ibn Abdul Malik te moom xilaafaam quatre-vingt-seizième année ci la génn àdduna maanaam al-Walid ibn Abdul Malik boobu quatre-vingt-seizième année ci la génn àdduna maanaam moom ko ci quatre-vingt-quinzième bi ci la génn àdduna rahimahullah radiyallahu taala anhu annahu naka moom daxala dugg na ala Usmaan ibn Affan ñetteelu xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Usmaan ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyata ibn Abdi Shams ibn Abdi di waa kër Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ah, mhm. ah, ngoog maanaam mooy amirul mu'miniina Zul ah, borom ñaari leeri day sal radiyallahu taala anhu abu am abu abdullah mhm. abu layla tam dañ ko koy wax radiyallahu taala anhu sayyidina usman ibnu affan moom mooy ki nga xamante ne tamit gàddaay na ñaari gàddaay moom mooy ki jëkk gàddaay dem xabasa mu jiite woon délégation boobu radiyallahu taala anhu euh, sayyidina usman ibnu affan amaanaam bu ñu xoolee euh, jarul ñuy dellu siwaat ci moom ñuy jox jotoon nañu ko gis euh, moom 146 xadis moom mooy li nga xamante ne moom mooy musnadam maanaam mook sayyidina abubakar da ngay gis ne ñoo tolloo ay ñoo tolloo musnad 146 xadis sauf que euh, imam maanaam euh, Seydina Aboubacar radiyallahu anhu 11 xadis la am ci saxiixul Buxaari ba mu daj imam euh, moom nag Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu am na ñett yoo xam ne muttafaqun alayhi de parce que dañu juumoon ci ci kiiwam ci ci musnadam ci Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu donc moom am na ñetti xadis yoo xam ne muttafaqun alayhi la du du ne du ne voilà am na imam al buxaari yi euh, rahimahullahu taala wéetoo na ci juróom-ñetti xadis ci ay xadisam maanaam huit plus trois day daan nekk onze waaw loolu tam dëgg la maanaam ni ñu ko waxee woon noonu deme na noonu sauf que muttafaqun alayhi bi la ñu teqalewul woon voilà dégg nga imam muslim kon moom moo am cinq xadis yu mu beru ci xadis sayyidna Usmaan radiyallahu taala ni ñu génn àdduna bisub àjjuma di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru zul hijja Euh, ci trente-cinquième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi amoon quatre-vingt-deux ans radiyallahu taala anhu maanaam moom dafa euh, maanaam mbiram yi dañoo kii ak alquran euh, dañoo lëkkaloo ak alquran voilà xam nga quatre quatre-vingt-deux quatre-vingt-deux mooy ayatullahi mhm. mooy al ummi yu tamit maanaam <laughs> dégg voilà Ousmane ci boppam mooy soixante six cent soixante un voilà te xam nga six cent soixante et un mooy miroiru cent soixante six cent soixante six mooy laa ilaha illallah voilà boroom kerse gu mag gi radiyallahu taala nga xam ne malaaka dañoo am kerse moom ñu ngi koy rob ci bàqeyaal Magharqali ci bisub samedi bi maanaam moom ci gi bisub àjjuma bi la génn àdduna waaye bisub samedi bi lañ ko rob ca bàqeyaal radiyallahu taala anhu warda nabi moom mu ne waxoo fekk moom maxsuurun koo Euh, dañ ko wër ndombo maanaam dañ ko wër ndombo mooy dañ ko am xeetu euh, encercle voilà dégg nga fa qaala mu ne innaka naka yow day nee na moom maanaam euh, abdu ubayd ubayd Ubaydullah ibn Adi ibn Xiyaar moom mu ne ma dugg ci Seydina Usmaan radiyallaahu anhu ma ko yow de imaamu amma yow imaam nga boo xam ne danga nekk imaam bu mat bu mag bi maanaam bu matale mooy kon imam bu mi nga xam ne yaa yor xilaafa gu mag yi la wa nazala te wàcce na bi ka ci yow maatara li nga gis ni xam ngeen ne mujjantalu Seydina Usmaan radiyallaahu anhu xawaari ji dañ ko warul ndombo te ci lañ ko boomee fekk ko ci biir muy jàng alquran radiyallaahu taala anhu ñu boom ko wa nazala te wàcce na bi ka ci yow maatara li nga gis wayu salli te mi ngi julli la naa ñaan imaamu fitna boo xam te ne imaamu fitna la am ne na Abdourahman ibn Addis al la te parce que moom moo leen jiite woon ci waa Misra moo jiite woon xawaari ji ñëw ñëwoon foofu am nañu ne euh, Kinaana ibn Bishr la mais de toute façon parce que jamono jooju période boobu moom moo doon jiite foofu noonu julli bu jotaat moom maanaam waa waa jooju moo daan jiite maanaam nga gis ne ay xawaarij lañ ay saay-saay lañ maanaam et cetera mais bu julli jotee dañuy ñëw dañu julli quand même euh, Euh, euh, yaa subhaanallah mais ngay gis ñoo xam ne dañuy wax ne ay jullit lan mais julli ñuy fier ci ne duñu julli kanam yaa subhaanallah yal nañu yàlla sàmm mais bi nga xamante ne moom la Seydina Ousmane radiyallahu taala maanaam bi loolu amee am na tamit ñoo xamante ne euh, daan nañ julli ci maanaam daan nañ jiite julli gi laata maanaam muy ku mel ni Euh, Abu Umaamata ibn Sahl ibn Hunayf daan na jiite julli gi même euh, Sahl ibn Hunayf radiyallahu taala anhu ak ki nga xam Seydina Ali ibn Abi Talib moom moo jiite woon euh, jour it moom jour boobu rek lay jiite ki nga xamante ne moom bokk na ci ñu doon jiitu moom mooy Seydina Talha ibn Ubaydillah Seydina Abu Ayyub al Ansari radiyallahu taala anil jamia mais moo tax imaamu fitna li muy tekki fii borom xam-xam yu wuute ci ndax imaamu jamonoy fitna lay tekki wala boog imaam bi nga xam ne moom ci boppam nitu fitna la te bu ñu xoolee ni maanaam dëgg-dëgg lii xadis bi bu ñu xoolee si yàq bi ak yeneen riwaayaat yi dinañ gis ni liñ ci jublu mooy imaamu boo xam ne moom ci jëmbi boppam nitu fitna la maanaam mooy koo xam ne maftun la ku ñu fitnaal la euh, dégg nga maanaam mooy kàccoor bi wa euh, ba pare moo tax te ñu tekki wanata xar rajo te ñun mbir mi daf ñuy metti maanaam day metti ñuy mën a julli ci ginnaaw saay-saay bii nga xamante ne moom moom moom moom ñoom ñoo la euh, mooy njiitu ñi nga xamante ne ñoom ñëw wër la ndombo nii mu ne moo tax euh, ñëpp bañoon nañ ñoom ñu jiite ba mu def Seydina Usmaan radiyallahu anhu loolu moo lay wan ne imaamu fitna bi liñ ci jublu mooy li ci imaam al Buxaari jublu ba tax mu indi ko ci bunt bi sinon doonul am dal doonul am njariñ mu ko indi ci bunt bi Euh, mooy mu ne Seydina Usmaan radiyallaahu anhu daane as-salaatu julli ahsanu mooy li gën maa li nga xam ne yaa amal dana ko def annaasu nit ñi nit ñi li gën li ñuy def mooy julli kon te loolu waxu yonent bi la ci boppam sallallaahu alayhi kon nag fa izaa ahsana su rafetalee annaasu nit ñi fa ahsin rafetalal maahum ànd ak ñoom suñuy julli te li ñuy julli nga gis ne buñ jullee de A à Z julli gi baax na yow mën ngaa julli parce que question bi yëpp aussi ça tourne autour de loolu moo tax mazhabu jumbour ëpp doole moy nak moy ndax waji d'accord kàccoor la mais limi def ci lu bon ci biti la ne ci biti julli gi la nekkul ci biir julli gi te mom su jullee ba pare seulmal est-ce que da nga nan julleem baax na wala baxu bu d'accordee ni julleem baax na yow kon ce qui veut dire que war nga mën a julli ci ginnaaw sa julli bax mbir mi yëpp ci lolu dong la aju moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ñu ngi ni ñoom Seydina Abdullah ibn a radiyallahu anhu julli nañ ci ginnaaw xajjaaj te xajjaaj ku ne xam na ay mbirum jarul ñuy développé mooy ki rey ki ki rey waaw soixante-dix mille personnes yooyu dont deux mille saxaaba xam ngeen ni kooku nga julli ci ginnaaw moo moo gën a garaaw que ngay julli ci ginnaaw koo xam ne daa naan sàngara kese bu fekkente ne màndi gi jeex na maanaam bien sûr day fekk jamono ji nga koy ba fekk na màndi gi jeex na waaye xanaa bi lay rahmatullahi am ñoom dañ naan kii nga xam ne ragalul yàlla ba mbir mi toll na foofu kooku boo jullee ci ginnaawam mën naa julli sans njàpp te te te du garaaw ci moom maanaam ñoom côté boobu la ñuy xoole <laughs> voilà mais li ñuy tontu ci biir boolool mooy ne julli dafa quand même dafa rëy quand nit ñi duñ ko foowee noonu ñaare mën nañu saay saay seenu saay saay mais bu julli jotee quand même ñu dem jàpp ji ñëw julli te loolu yëpp mooy ci kaw mu nekk koo xam ne dañ laa dañ la maanaam comme fi mu ne woon na tax xarraju maanaam mooy ne dañuy renforcer bien sûr que duñ jël ku mel noonu def ko imaamu nit ñi ba pare euh, euh, euh, ñu mën ko fii jëlee teg fi beneen imaam ba pare naan noo garaawul comme fas na nekk imaam amul loolu amul luñ ci luñ ci masla du astaghfirullah masla du baat bi am luñ ci ragalante gannaaw amu ci voilà dégg nga mm-hmm. mu ne wa isa asaaw suñu ñaawee nag fajte nit moytandikul isaa atahum seenum ñaawee moo tax Seydina Usmaan radiyallaahu anhu dafa ni julli mooy li gën képp ku leen woo lool la man daakum ila salaati fa ajibu képp ku leen woo jëm ci julli wuyu leen ko julli leen ci ginnaaw maanaam loolu wax ji Seydina Usmaan wax radiyallaahu taala dafay tëj bu werante bi ci buntu boobu noonu ak li Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wax fële ne la ah fal yu sal fal yu sallu lakum fa in asaabu fa lakum wa in axtau wala wa in asaawu fala lakum wa alayhim loolu gisoon nañ ko ci xadis bi weesu ñoom ñoo leen ñoo leen di jiite mais su dee dañuy def yu baax yéen ñoom suñu jubalee yéen seen julli baax na su fekkente ne ñoom dañuy def yu bon maanaam en door de julli gi ñoom seen problème la yéen dingeen am seen julli yéen وقال الزبيدي موتا آه وقال محمد الزبيدي آه طالب امام الزهري رحمه الله تعالى آه دي امام حمصي نيك قاضي محمد ابن الوليد ابن عامر الزبيدي رحمه الله تعالى ابو الهذيل موي داخنتلام ني ген عندنا 147 اني غيناو غدا ان صلاه سلام حديثا ني تكرو سته من قال الزهري من قال الزهري موي مام ابن مسلم شيخ نشاب بيم واخي ري با بار دا لا نرى ني غيسو ني ان نصلي تي ني جولي xaw xalfal muxannas ci ginnaaw al muxannas ndax dafa am lu ñu muxannas ak muxannis amma al muxan al al muxannis mooy ki nga xamante ne euh, euh, dafa euh, maanaam muxannas plutôt mooy ki nga xamante ne dafa dafa dafa góor la mais dafa yor yaramu jigéen ak ay manière jigéen voilà kooku <laughs> mooy muxannas ah wala koo koy muxannis voilà muxannas mooy ki nga xamante ne dañ koy dikke maanaam mooy góor jigéen bi nga xam ne ñoom ñaar ñëpp nag wolof góor jigéen la leen di wax maanaam euh, bu dee muxannis bi nga xamante ne moom dafa yor forme jigéen góor la ba pare dafa yor manière jigéen bu boobaa kooku muxannis mën nañoo julli ci ginnaawam su fekkente ne du moom lu muy tey maanaam kenn noonu la bindoo kooku mën nañoo julli ci ginnaawam maanaam moom ak euh, mais bu fekkente ne ki nga xam ne moom day dañ koy dikke maanaam moom euh, góor jigéen la maanaam le fait ñu koy dikke rek amul problème ak le fait muy dikke maanaam <laughs> maanaam góor jigéen bi joué rôle jigéen bi kooku moom garaawul maanaam ak ak le muy joué rôle góor bi ñoo yem hmm. moo tax mu ne góor jigéen moom ñu naa ñu ne moom moom illa min darura duñ julli euh, lu dul loo xamante ne ci lor la boo xam ne laa budda min xamante ñàkk moo tax mu ne wala karaama ci beneen riwaaya duñu amul nga amul benn rafetal góor jigéen la wala koo xamante ne dafay wo dafay def yëfi manière jigéen te tey ko duñ julli ci ginnaaw maanaam mooy kàccoo rek hmm. maanaam maftuun bokk na ci façon nit ñu ne maftuun te bokk na ci maanaam boo xoolee imaamu fitna fële ak maftuun feneen fi maanaam teg teg ci ñi nitu bidaa lañ maanaam ki ci kaw xawaarij bi nitu bi la parce que moom sinon boo génnee loolu da ngay gis yeneen yi ci yëpp dafa correct euh, mais kii nga xam ne maanaam moom dafa efféminé góor jigéen la day def surtout bu dee par exemple day dem ci mbootaayu jigéen ñi di feccal jigéen ñi di <laughs> di fekkee sabar yi ak yooyu maanaam di def yëfu jigéen ak ki nga xam kooku moom kàccoor la duñ ma a julli ci ginnaawam kooku kàccoor la buñ dul julli ci ginnaawam ci waxu ñan euh, xan voilà xanaa bi lay ak kooku wax ci Maalik yi rahmatullah ki nga xamante ne nag mais nag su te ne moo ko tey maanaam te kooku ñaare du jàng du jàng du xam diine du kii kooku boo ko fekkee muy julli bàyyi ko nga dem ber sa julli nga julli sa julli maanaam ak ñu yor façon boobu yëpp ñu yor manière boobu yëpp maanaam ñi nga xamante ne ñaare dañuy nekk ci ay mbir yoo xam ne comme par exemple ki nga xamante ne euh, ci baar yi lay faral di nekk day faral di kooku souvent du jàng du du xam nu ñu jullee kooku euh, tamit da ngay daal di boo ko fekkee muy julli li gën a wóor mooy nga bàyyi ko quand nga dem nga julli sa julli parce que wóorul. Mm-hmm. voilà mboolem ñi nga xamante ne dañoo yor xeetu xalaat yi yenn yi yu yi. Mhm. wala yenn comportement yi bu ñuy quand même nga julli sa julli moo gën. parce que euh, surtout suñ jamono ji nga xamante ne même ñi correct ñi ci xam ni ñuy jullee léeg-léeg da ciy bari ñi ci xamul ni ñuy jullee da ciy bari ci même ñi correct lan ngay xalaat ci ñi nga xamante ne seen comportement dara correct tuuti mais nag bu fekkente ne moom mooy imaamu jàkk ji kooku dañuy julli ci ginnaawam. maanaam masala yii mu ngi aju surtout parce que ci ci ci bu ñu noddee ba ñëw imaam bi ñu teg nangam nangam mais moo tax mu ne ñii duñ julli seen ginnaaw ba mu des su dee lor la maanaam mooy suñ ko imposé ni kii mooy nekk imam par force ci cas de boobu dañuy julli seen ginnaaw voilà. Euh, voilà waaw waaw mooy góor jigéen bi. non parce que kàccoor la moom ak njaalookat bi naan naankatu sàngara bi euh, reykatu nit bi ñoom ñëpp ñoom ñëpp ay ay saay-saay lañ ay kàccoor lañ ñoom bu fekkee ne euh, xam nga am na jàkka ju am euh, évri boo xamante ne jàkka yi góor jigéen ñi la tudd parce que association góor jigéen ñi ñoo defar jàkka ji ba pare ñoo fay julli jàkka jooju masalan du dagan jullit dem fa di julli waaye parce que euh, dafa maanaam lu tax defuñu maanaam parce que problème idéologique bi dafa rëy maanaam mooy lan lu tax defuñu jàkkay sàcckat yi masalan jàkkay reykat nit ñi jàkkay naankatu sàngara yi mais jàkkay góor jigéen ñi maanaam mooy dafa am mentalité idéologique boo xamante ne dafa nekk ci ginnaaw boo xamante ne xeetu xeex la bu bu nekk foofu loolu mooy li tax du dagan nga dem di julli ji ci ñooñu te it même bu dul woon loolu nga xam ne imaam bi góor jigéen la wala imaam bi sàcc la boo xamante ne dagg nan loxo bi sax te da doon sàcc wala boog jàpp nañ ko plusieurs fois te ñëpp xam nañ ni sàcckat la euh, wala euh, naankatu sàngara la wala yu mel noonu ñu xam ko ci ñoom ñooñu tamit maanaam buñ naan julli seen ginnaaw wér na taxul julli seen ginnaaw dagan ci cosaan loolu lu mat a bàyyi xel la bu ñu naan julli seen ginnaaw wér na mooy boo jullee julli gi baax na loolu bokkul ak nga ñëw délibérément ñëw taxaw julli seen ginnaaw loolu du dagan du dagan abadan euh, parce que di di ba mu des nag su dee dëkk bi kenn du fi wax loolu am na parce que ñun période bi ñu dund alhamdulilah ak réew yi ñu dund yàlla daf ñoo dimbali ba ñu dund ci jamono ak réew yoo xamante ne problème yooyu xamuñu ko ñun mais da ci amone rew yo xamantene ak dekk yo xam ak jamono yo xam ne euh, bu ñu nee kii imam bi julli jot na gaay ñew leen té par force da ngeen di julli ci ginnaw waaji le simple fait que nga tok naan da ngay discuter mbir mi waxuma la sax nga wax ko mais le simple fait que ngay wane ni am nga leneen lo wara mëna xalaat ci mbir mi moy dañuy tour say bët lool moy le minimum amma so taxawé né ne. Euh, lii moom ànduma ci moom mooy mooy dee nga maanaam mooy yow yaa signé sa arrêt de mort maanaam loolu nag jamono yu mel noonu maanaam mooy dangay ngay julli ci ginnaaw ñooñu ak it bu fekkente ne jàkka ji moo fi nekk nit ñi ñëw na ñu ne imaam bi euh, day pare voilà loolu beneen masala la bu ma bu ma fàtte woon euh, ci ci fële te loolu lu mat a bàyyi xel la ñu wax ko léegi tëj tëj tëj bunt bi dafa am benn mbir moom nañ ko bàyyi xel Euh, buñ nee imam bi dafa am yenn jikko yu mu amee xam ngeen ni euh, imaam comme comme par exemple xanafi yi ñoom dañuy bañ imam bu amul sikkim pare exemple euh, mu am ñi nga xamante ne mais loolu tey par exemple mënuñu wax wala ñu gis te te te te te am na kenn ci borom xam bi yi fàtte naa kan la nga xamante ne moom daanul nangu. daanu nangu euh, par exemple nit ñëw jàng ci moom te te yorut si kim daanu ko nangu imam Abu Daawud bi mu indee doomam affaire boobu daa metti woon ci moom yaakaar naa Ahmad Ahmad ibn Saalih al-Misri rahimahullah daf ni woon non non non du ma du ma du ma jàngal sa doom ji mu ne ko déet i eh, kii dafa xale da moo tax day di xale mais sinon mokkal moo gën a mokkal ñu mag ñu bëri ñu am sikkim yu bari moo tax bi mu ko dégloo après moom rek la ma sa jàngal te yorul sikkim mais par exemple loolu tey ay rigueur la yoo xamante ne ñun mënuñu koo appliquer darul sax am sens pour ñun ñu jéem koo appliquer euh, beneen mbir boo xamante ne ma masalan tey am na mbir moo xamante ne mën naa garaaw ci yenn gox yi ba pare doy waar ci yenn ba pare nekk lu normal ci gox yi par exemple tey boo ñëwee Sénégal ñun euh, nga gis imam buy tux publiquement di tux loolu kooku moo gën a naqaree lijjanti ay mbiram que bu doon par exemple Turquie nga xam ne imaam bi mën naa tox te du doon problème ci moom mais par exemple yenn dëkk yi imaam boo xamante ne par exemple comme Makka imaam boo xamante ne par exemple daa wat si kii moom loolu mooy gën a naqaree lijjanti kay nga dem Sénégal gis fa imaam bu wat si kii moom imaam bu wat si kii moom Sénégal taxu ko saay-saay maanaam xëy na da koo def. ngir ne ñëpp koy def ak yooyu nangam nangam même bu dee li mu def baaxul contrairement ak Makka Makka imam bu watee sikki moom ce qui veut dire que kii saay-saay la euh, nit ki noonu Sénégal nga fekk fa imam buy tux ce kii sa kii wérul mbir mi noonu la maanaam c'est dëkk yi tamit mbir mi da ciy da nga fekk par exemple France imam buy jox loxo jigéen moo gën a choquant que qu'on fait comme par exemple Maroc wala voilà wala Algérie muy jox loxo jigéen imam bi di nuyu jigéen ñi ni euh, wala wala Égypte nga gis jigéen sax imam bi di di di jox loxo jigéen ni alors que Sénégal bon peut-être que c'est un peu moins choquant maanaam loolu du texte ne imam bi ñeme na di julli t'es du t'es du jàpp par exemple maanaam imam bi jox loxo jigéen rek Sénégal taxul nga mën a xalaat ne imam bi ñeme na yàlla ñeme gu toll muy julli sans jàpp te di ko tey alors que yenn dëkk yi par exemple Medina imam buy jox loxo jigéen wala mu leen di biis man ngaa waat ne kii du ma julli ci ginnaaw parce que war na ñeme yàlla ñeme yàlla gu toll ne muy muy muy muy muy muy muy muy jiite nit ñi te fekk du jàpp maanaam mbir mi tamit selon dëkk yi. ak selon manam ni euh, euh, jamono yi ak mini ñuy xalaate mbir tamit day war di day day évoluer voilà par exemple jigéen juy euh Sénégal bokkul ak jigéen juy meesu ci yenn dëkk yi yenn réew yi voilà yenn réew yi jigéen ju dul muuru nii dafa am lu muy tekki manam moy vraiment ki dafa liberté manam dafa bayyi bopom té Euh, euh, ak caay-caay moo ko dugal ci ñàkk muuru gi am na yenn dëkk yi noonu la mais Sénégal par exemple jigéen ju muuruwul tekkiwul ne daa saay-saay maanaam c'est pas parce que jigéen ji muuruwul rek que nga war a xalaat ne kii jigéen yu yomb la ku ku bëgg a njaaloog moom njaaloog moom wala yu mel noonu abadan maanaam lu tax parce que dëkk en fait mbir mu ni muy xewee ci dëkk yi ak nit ñi ni ñuy xalaatee day day wuute selon voilà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 Hmm. Ça remonte. Hein. So, c'est en 1669, je n'avais pas compris l'argumentation qui explique que euh, dans le hadith, ça peut, euh, euh, dans le hadith, pourquoi ça peut pas être Yahya ibn euh, al hmm. D'accord, en Hisham, euh, moi, Ad-Dastawa'i. waaw waaw parce que euh, Yahya ibn Saïd al-Qattan du nekk ci génération bi Yahya ibn Saïd al-Qattan 198 la génn àdduna alors que kii 129 la génn àdduna Yahya ibn Abi Kathir maanaam boo xoolee sëriñam maanaam taalibeem mooy Hisham ad yi moom mi ngi génn àdduna 154e année maanaam déjà loolu génération bi du benn maanaam c'est que. Euh, problème bi fi mu nekk mooy génération yi dafa am solo tamit manam génération Yahya ibn Sa'id al-Qattan génération talibé ñum Hisham la ad-dastawai waye du sen génération wu sëriñ loolu moom moo Allah taala alam après j'avais j'avais pas compris Sur le masala qui dit que quand on a commencé une prière. Quand Quand on a commencé une prière mm-hmm. mais le, euh, le deuxième azan, il a commencé. Le Kambé. waouh vous faites tenait ligne Inch'Allah. moi ñaari mbir faites Vous da munga madame nga pare julli ji fekk imaam bi ci rakka bu njëkk bi bu boobaa loolu moom mooy li gën soo ko munul def bu boobaa da ngay daal di sëlmal rek maanaam da nga naan asalaamaaleykum bu boobaa nga daal di comptabiliser li nga xam te ne moom nga jotoon am ci julli bi après nga daal di ñëw dugg ci rang yi parce que euh, julli bi warul a rëcc tamit ndax julli boobu mooy farata te julli farata bi comme moom moo ëpp doole naafila bi. bu boobaa moom la ñuy teg et que rakka bu njëkk bi warul la rek ci ngir loolu wallahu taala aalam En fait, euh, j'avais pas compris si euh, quand on a envie de faire les besoins ouais. et qu'on se retient euh, parce qu'on se retient à la prière, Ensuite, tu avais expliqué qu'en fonction de euh, si dans la prière, le fait de se retenir, ça nous perturbe, mhm. à un moment donné, ça arrive à l'annulation de la prière. Mhm. Ce moment-là, là, c'est quoi Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dise, non, là, la prière est annulée, quoi waaw moi voilà mooy ci salaatul le euh, mooy julli ki nga le ne day day jañ maanaam day téye boppam ngir bañ Euh, dem tuuri ndox wala dem dem ci wanag bi en quelque sorte maanaam euh, wala boog ngir njàppam bañ a kooku li nga xamante ne moom mooy li jaadu ci ay mbirum mooy mu mu bañ ko def laata muy julli maanaam bu xamee ni dafa soxla dem ci wanag wala boog njàppam day mu dem julli maanaam mu bañ a dem mu bañ a tàmbali julli gi mais su fekkente ne xam na ni mën naa téye boppam bu boobaa mën naa daal di julli mais sous condition que mu mu bañ di nekk di jañante ak moom di jañante ak moom ba dootul xalaatati dootul xamati ci lu mu nekk wala ba muy daawtu di di di di rate ponk yi léegi liñ ko tënkee lii kese la mooy su fekkente nit ki suy julli euh, masalan am na position yoo xamante ne su ci nekkee day inconfortable maanaam du mën a téye boppam comme masalan su sujjootee wala mu mu rukkoo wala mu taxaw euh, day daal di yàkkamti gaaw jóge foofu balaa njàppale toj wala balaa et cetera dara di génnee ci moom ak yu mel noonu maanaam bu nekkee ci situation bu délicate boobu nga xam ne dootul teewul wati non seulement mais aussi day daal di am ay ponk ci biir julli yi yu muy rate ponk yi nag yi yi ëpp yi ñuy rate ci jamono yooyu du tar yi du yi ñuy tareeg yooyu mais tumaaniina gi la ak eete daal yooyu ñoo ëpp yi ñuy rate lan la mooy tumaane mooy dal gi mooy mouvement boo def nga war fa dal waaye tamit ak daal mooy ne dafa am par exemple ki nga xamante ne am na lu muy taxawee wala am na nu muy toogee wala am na nu muy rokkooyee njàppam day toj dara génne ci moom bu dee day tuur ndox maanaam maanaam euh, ndox mi génn wala yu mel noonu masala am na nu muy nu muy taxawee wala nu muy toogee mbir mi génn mais euh, du du du toog toogin bi jaadu masalan du taxaw taxawin wi jaadu wala yooyu maanaam day nekk koo xam ne day jéng ak yooyu noonu maanaam le fait que mënuloo munuloo remplir condition yooyu te ñu nekk ay ponk ci julli loolu mooy nekk problème bi bu boobaa maanaam bu fekkente ne nag mën nga julli loolu yëpp malgré que dina jañanteeg yow waaye da nga julli da nga mën a rukkoo tranquillement mën a sujjóot tranquillement mën a taxaw tranquillement tari sa faatiha tranquillement teg ci sa aaya tranquillement vous yu mel noonu bu vous euh, nga taayee tranquillement seulement tranquillement bu boobaa dootu amati problème loolu rek moom euh, règle savoir taala euh, que euh, beaucoup disent que par exemple, bon, j'ai entendu dire que par exemple, euh, c'était déconseillé de dormir entre la prière du matin et le mais du coup, nous, dans tout ce qu'on a vu, ça, on ne l'a pas vu. Du coup, ça, ça veut dire que ça n'a aucun rapport. Si, si, si, si. Euh, par, ah, ça n'a aucun rapport avec La religion. Si, si. Si, si, si. Parce que le moment bobu, euh, dañ ciy bëgg ku ku ci ku ci sikkar ku ci tudd borom bi subhaanahu wa taala euh, ku ci fàttaliku yàlla mais pas koo xamante ne day perte temps boobu noonu manam moment la bo xamantene nit ñi dañu manam wala loolu lañu bëgg mais loolu ci kaw ci kaw mu jappandi la ak nu mëna nek ak mu bañ la yaqal lu bari ci sa ci sa bis bi. manam aussi lu nu sopp la. euh motax jamono joju mu nekk jamono sikar jamonoy tudd yàlla euh, fatlu ko borom subhanahu wa taala jamono jang alquran euh, voilà mais du du effectivement loolu loolu la. wow Euh, après, je n'ai pas compris dans euh, euh, mhm. le 687. le 687, dans le massage numéro 2, mhm. parce on a dit que si on manquait un sous-bloc, si on manque un sous donc après on refait trois sous deux Mais ce que je ne comprends pas, c'est comme le sujjóot c'est un des piliers, normalement loolu lañ la mujj wax maanaam liñ la loolu yow li nga wax ni waxu imam al-Hasan al la woon rahimahullah mais ngir tënk mbir mi moo tax après nee na la ngir tënk mbir mi parce que loolu dinañ ci ñëw ci kitaabu sax bi ci abwaabu sax bi incha allahu taala mais li nga xamante ne moom mooy def mooy loolu su la dalee nga ratee sujjóot ci ci benn rakka rakka boobu.

boobaa da ngay dellu dangay ngay da ngay da ngay da da ngay da ngay jóg defaat beneen rakka sauf que léeg-léeg comme rëccoon na la yeneen rakka yi ci des yëpp da nga koy defaat tout tout en sachant que ni bële compté bu doon mooy deuxième rakka da nga koy def léegi mu nekk maanaam mooy ne mooy ne bii bii di ñëw au lieu mu nekk troisième rakka bii di ñëw mooy nekk deuxième rakka ainsi

sujjóot bi la et walla wala boog dem naa ba jug ci sujjóot ñaareelu sujjóot bi mais su fekkente ni jugaguma ci ñaareelu sujjóot bi et par exemple ma fàtte ni dama rukoowoon maanaam rukoowuma parce que cas de figure sujjóot lañ nekkoon ni mais wala boog cas de figure bi nga xamante ne dafa am ponk ci rakkaa bi bu ma rëcc mais maa ngi ci beneen rakkaa bi ci tegu mais su dee ci benn rakkaa bi laa ne fekk sujjóotuma ñaareelu sujjóot bi ma fàtte woon benn ponk maanaam comme masalan damaa fàtte rukkoo bi damay dellu si waat def rukkoo bi mhm. ainsi de suite noonu laa koy defee mhm. mais su fekkente ne effectivement su jot bi moom rek ci lay ci lay dellu set voilà mhm. léegi nañu dañuy jël exemple bu bu bu clair damay julli tisbaar ma dem ba ci deuxième rakka bi ma remarqué ne euh, sujoot bi rëcc na ma deuxième rakka bi rëcc na ma damay considérer troisième rakka bi comme étant deuxième rakka bi ainsi de suite su ma paree ma def sama sujoot baada salaam baax su fekkente ne dafa am recours bi daf ma rëcc mais maa ngi koy fàttaliku ginnaaw bi ma sujjóotee sujjóot bu mujj bi ci laa ko doog a fàttaliku bu boobaa ci laay jugaate damay jógaat et que boobu perte mais damay considérer que damay daal di tàmbali lan premier rakka bi loolu mooy su fekkee jóg naa ci sujjóotu ñaareelu sujjóot bi de façon mais feeñ yëgguma foofu masalan tey ma fàtteeru ko mais bi ma koy fàttaliku fekk na nekk guma fi mu war a jógee ci sujjóot bu njëkk bu mujj bi maanaam maa ngi dem ba ci sujjóot bu njëkk bi sujjóot naa maanaam damaa doog fàttali ko demee ruku awma di damay jugaat def sama ruku jugaat ci ruku bi dem defaat sama ay sujjóot ainsi de suite te bu boobaa rakka boobu day daal di baax sauf que dinaa def baada salaam baax na voilà ñi yooyu cas de figure ñoom wallahu taala Mm. Après, comme on a dit pour, euh, dans les amis les plus recevables, on attend que l'imam fait son sujet, après on fait le nôtre. Par exemple, pour les femmes, comme elles ne voient, elles pas elles doivent se, se fier à quoi Elles doivent se fier au moment où à l'avoir ou ci kagn lañuy bon leral nañ ko mais à travers wax yi manam ci biir wax ji manam lañ koy comprendre mais pas wax ji ci jëmmi boppam manam il faut que ko comprendre que ni fini comptabiliser ni diw def na nangam moy su waxe allahu akbar bi ba mu matal ko ba nga gis budé ya koy gis yaa ngi koy gis muy def moo tax li ñu sopp nit ki suy julli yooyu dinañ ko gën a gis incha allah euh, ci melo julli gi li gën mooy mooy kàddu gi accompagner mouvement bi yépp c'est-à-dire bu ma nee allahu akbar moment bi ma naan allahu maanaam bu dee damay dem sujjóoti ji bu ma nee aw abi maa ngi tàmbaliwaat mouvement bi en même temps de telle ko bu ma nee bar rë boobu noonu mu fekk moom ma dëpp sama jë maanaam maa ngi sujjóot loolu mooy li gën donte yeneen yi ci des yépp mën na ne euh, mais nit ki moom day fiyewu tout le temps ci kàddu imam bi walla mu fiyewu ci bu dee ko koy gis la mu fiyewu ci ki muy gis lool moo tax euh, mu ne lam lam na ahadun minna zahrahu xatta yaqa rasulullahi wala am sallallahu alayhi wa sallama saajidan amul kenn ci ñun koo xamante ne daan na jéngal ndigg li lu dul mu fekk ne yeneen bi saa sam sujjóot na ba pare te loolu mu a summa naqawu saajidan wala summa naqawu saajidina topp ñun ñu rot sujjóot ñun tamit loolu li boo gisee mu mën a ne mooy daf fekk ne euh, su maanaam mooy ne ñoom dañuy gis imam bi te loolu bokk na ci masala yi ñu fàtte woon a leeral ci mbir mi ci yi ñu fàtte woon a jukki ci ci ci xadis bi te da koy wane mooy ne julli gi dina dagan nit ki di gis imam bi te loolu day dëgëral mazhabu ñan fuqaha maliki yi rahmatullah alayhim ñoom nga ne dañ jàpp nit ki buy julli mu maanaam day xool imam bi hmm? voilà alors que li gën a euh, siiw te euh, nit ki day xool ci place bi nga xam ne foofu lay sujjóotee Euh, mais ne loolu jumhur ñoom duñ ko gisee noonu li ñu koy gisee rek mooy du ne dafa xool dañuy xool imam bi mais dañuy gis imam bi parce que ma ma ma xool fi may sujjóot du tere bu imam bi sujjóotee ma xam ne mi ngi sujjóot euh, mais ala kulli xaalin ak lu mënti xew euh, bu dee jigéen ñi la ak fa ñu ne ñoom dañuy fiyewu ci kàddu gi du ñu fiyewu ci parce que ñaari possibilité moo am mooy maa ngi gis imam bi wala maa ngi koy dégg su dee maa ngi koy dégg la damay fiyewu ci dégg gi su dee koy gis damay fiyewu ci gis gi wallahu taala euh, parce qu'on a dit qu'il y avait quatre concepts mm-hmm. euh, dans le concept de Muqarana. Muqarana, taqib non taraaxi la ak taraaxi mm-hmm. na mooy lëkkaloo mooy attasaawi mooy imaam bi buy def dara man ak moom ñoo koy defandoo te loolu euh, bëri na ci ñu koy jullee maanaam wolof yu bari sax noonu la jullee maanaam daanaka ñoom imaam yee defandoo mouvement yi euh, mu am lu ñu tuddee euh, ak moy mooy hein la question. Uh-huh. en fait les concepts ils sont clairs. d'accord. voilà la question c'est maintenant par madame. waaw. les les hanafiens. Uh-huh. on a dit que le le le concept un faire en même temps eux ils étaient ok. Uh-huh. pour le concept 1, 2 et 3, mais qui disait que c'était interdit le concept de classe. C'est-à-dire que là, ma question, c'est pour valider. Quoi. Voilà. Donc les anafiens ont dit que eux, ils ont dit que c'était OK de faire en même temps, c'était OK de suivre, et c'était OK de faire un peu après. Mhm. Et, euh, mais avant qu'ils fassent le prochain. Voilà. Mhm. Mais ils ont dit que de faire avant lui, c'est interdit. Voilà. Et les anabiliens, ils mhm. ont dit que le 1 c'est ok, mhm. que le 4 c'est interdit, mais que pour eux le meilleur c'est la sunna, c'est le 3. Voilà. Et les malékiens, mhm. ils disent que le 1 c'est déconseillé. Mhm. Voilà. Euh, le 3 c'est la sunna et le 4 c'est interdit. Voilà. Et les chafiens, ils disent que le 1 c'est pas ok, sauf pour euh, le début et la fin, pour le salut final et le salut du début. Le 4 c'est interdit et le 2, c'est OK, et c'est E pour ça la seconde. Voilà. 2 bi. 2 c'est pour la souveraineté. Voilà. Et les anabiliens. non non mais mais ñoom 1 bi 1 bi OK oul, ci ci début bi finis, fin bien, hein. ah. Eh. ah c'est le contraire alors c'est. c'est e. le 2 hein voilà. pour le salut final. voilà. Euh, et le voilà. Euh, OK et donc après juste les anabiliens et malikiens leur positionnement sur la vie numéro 2 euh, Le fait de suivre. moi baax na moi que c'est bon. Et donc au final, on dit que l'avis le plus recevable, c'est celui des Hanabiya et des Malik oui, madame, avis bi gëna a Inch'Allah, moy té manam euh manam euh du c'est-à-dire que li gëna bax soy def soy viser perfection bi loolu la la bëgg sooy viser perfection bi li ngay def mooy de voilà mooy comme li Maalik yi wax rahmatullahi alayhi maanaam euh, mooy taaqib wala taraaxi mais li gën mooy taraaxi mooy ak taraaxi maanaam mooy su kàbbaree euh, nga doog a kàbbar comme ni am comme ni ko yéen jibi wax saa fa isa kàbbara fa kabiru su kàbbaree kàbbar leen te loolu day tegte la ne il faut mu def ko ba pare nga doog ko def yow su rukkooee fa ida rakaa farka'u su rukkooee rukkoo'an wa ida qaala sami allahu liman hamida kon mooy wax na ko ba pare bu nee sami allahu liman hamida te comme bu koy wax day jugaale mooy kon pare na bu ko waxee ba pare yow fa quulu rabbana walakal hamdu na ngeen wax rabbana walakal hamdu maanaam mooy da koy def ba pare nga doog ko def comme niñ ko gisee ci yeneen xadis yi ne day sujjóot ba pare sahaaba yi radiyallahu anhum dooga sujjóot loolu mooy lii gën a dëppoo so ak sauf que bu dee day sëlmal bu waxee asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ñaari yoon su ko defee bu defee bu njëkk bi ba jeexal mën ngaa def bu njëkk bi yow mu doog a def beneen bi nga doog a def beneen bi wallahu taala alam donc toujours dans ce masala-là comme on a dit que an-nusakha ça pouvait annuler la prière de quoi non ah musaabaqa d'accord waouh. voilà voilà là ça ça annule la prière. Mhm. donc du coup je parce que bon quand même euh, bon beaucoup font ça quoi je vais faire avant. avant imam bi. waaw Waouh. et donc du coup l'annulation l'annulation de la prière quoi qui me le fait que la prière elle est pas valable quoi. Waouh. loolu moo la là, moo la jaaxal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 c'est-à-dire que bi par exemple tey exemple bi ñu joxe woon sax mooy la nit ki day daal ba sabbih isma rabbika ala ba ci suhufi Ibrahima wa Musa parce que xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su daan julli day am place yu mu daan noppi avant muy dem ci beneen mouvement bu ne allahu akbar rek du ne akbar bismillahi rahmaani akbar même bu dee ci deuxième rakka bi day taxaw daal di doog tàmbali tari su demee ci wala daalliin amiin noppi doog a tàmbali tari su demee ba jeexal comme ni suhufi ibrahima wa muusa allahu akbar moom lay def maanaam du wax suuf Ibrahima wa Moussa allahu akbar du demee noonu dégg léegi nag am na nag awaam yu bari ni ñuy def mooy ñoom bu ñëwee suufi fi wa Moussa ñu ne ah sa ay jeexal na tane mais imaam bi jeexal na léegi ñoom dañuy jiitu imaam bi ni allahu akbar avant imaam bi di wax allahu akbar bi du ko loolu lañ la wax jiitu ko. Parce que ce que je veux dire. Mais que c'est. que euh... un cas concret, par exemple, si on prie, après, on, comme on ne voit pas l'imam, on croit qu'il quand il y a du monde, on se, lève après le sujet. En fait, lui, il ne s'est pas encore levé, il se lève un peu après. Est-ce que ça, ça veut dire que cette prière-là, il faut la refaire non non non non non mais moi lañ doon wax sànq moom mooy masala bi de doon euh, bon ah, c'est vrai que je suis masala bi mais jegewantoo nañu Madame, euh, il faut me comprendre que soo suñ dee suñ waxee loolu yow da war a topp moo tax imam bi loolu foofu la problème beneen di jiitoo di amee mooy ndax imam bi da ngay obligé di ko gis maanaam kuy julli wala lëkkaloo ci moom waaw wala déet parce que fuqaha maliki yi rahmatullah ñoom possible na ci ñoom ñuy julli nii fii nii euh, ci biti am ñuy julli te duñ gis ci fi biir mais sous condition que ñu koy dégg suñ ko dul dégg julli gi du mën a ne mais il faut ñu koy dégg alors que ñu ci ñom nangu wuñu ko noonu ñom dañuy bëgg au mire au pire des cas ngay gis imam soit imam bi wala kuy roy ci imam bi au pire des cas nga gis ko parce que effectivement yu melni lañuy bañ euh légui tay su fekkentene da ngay julli. euh ñu ne ñu ne maanaam imaam bi rukoo na wala ci imaam bi sujjóot na wala rukoo na mais moom bu taree ba pare yow nga dégg tari na ba pare da koy bàyyi ba ma nga dégg ne ne ne kàbbaar na rukoo mais mu tari ba pare euh, yow dégg googu mu kàbbar rukoo yow nga kàbbar rukoo mbir mi du demee noonu parce que bi nga dee yaa koy dégg muy tari mooy ne kon bu kàbbaree rukoo da nga ko dégg. wala bok danga guiss wala danga guiss kuko guiss wala dinga guiss ku guiss ku guiss koko guiss ka guiss koko koko ka ka guiss manam dina am kenn ko guiss manam ça m'est déjà arrivé par exemple avec les filles des fois on n'a pas rien on n'entend vraiment rien surtout les fêtes surtout la fête de l'Aïd et en fait mais comme les filles devant toi y se lèvent toi tu te lèves exactement mais après <laughs> tu entends que en fait les mames c'était pas encore levées d' accord ah waaw njuumte non non ah, euh, beneen bi ci des te loolu yaakaar naa leeraloon nañ ko mooy ki nga xamante ne moom la kooku di concerné mooy ki nga xamante ne daf koo def da ko def ba pare imaam bi fekk ko ci beneen ponk bi maanaam mooy euh, voilà. Ah, kooku lay concerné mais pas yi nga xamante ne daf ko def après mu dem rattrapé wu dellu si wat kooku du ko concerné ba pare il faut mu nekk ci rakka bu njëkk bi bu dee ci comme Maalik ci rahmatullah alayhi bu dee ci Shaafi'i il faut mu nekk ci ñaari rakka yu tegalo bu dee ci eh, eh, Hanbali yi rahmatullah il faut mu nekk ci rukoo bi kese mais pas ci sujud bi voilà hum voilà ñaari ponk voilà c'est bon léegi voilà bu beneen yoonee xam naa ñoom ñu yeggale yeneen question yi xam naa comme que timis jot na